entreprise terroriste naka noonu ne ay actes yi nga xamante ne dañoo jàpp ni mën naa salfaañe kaaraange biir réew mi gannaaw moom lu toll ci ñetti ndaw tamit mujj nañ leen teg loxo ca fi nga xamante ne moom mooy Kër Ndiayloo moom maire Pape Sow les éco di ñu xamal ni laata ñu koy dut ab mandat de dépôt daanaka lu toll ci ñeenti yoon am na li nga xamante ne mooy retour de parquet te mbir yi nag bokk na ci li ko indi ay tuuma yu diis yi nga xamante ne dañ ko ngàll ci ndoddam bokk na ci entreprise terroriste wàllub terrorisme nag bu yóbboo Sénégal bàyyi ci xel bu baax tribune yéene kay xëy tey di ñu xamal ni yeneen jëfiñ lañ doon waaj def fi nga xamante ne mooy diwaanub ndakaaru waaye mujj gi mbir yi antuwul ndax fukk ak benn ni ay suspect maanaam ñi ñu njort ni kon ñoo ko doon jéem def teg nañ leen loxo ak ay jumtukaay yi nga xamante ne defaroon nañ ko ba noppi ngir amal explosion ci ndakaaru bëri na nag ay gox yi nga xamante ne ñoo nekk ci capitale bi dañ leen ciblé woon vox populi di ko ci feelu di xam ne ni kon yëfi démb la nag ci ndakaaru te police moo ci def taxawaay bu mucc ayib ba noppi teg loxo lu toll ci ñaar fukk ak ñeent ni doomu aadama yi nga xamante ne kon ñoo ko doon jéem a def l'observateur di xam ne ni attaque bi nga xamante ne dana ko déjoué ñu ñu ci teg loxo am na ay kilifa yu ñu weejee yéene kaay groupe Futur Média bi di xam ne ni bërëb yi nga xamante ne ñii dañu ko ciblé woon muy centre ville bu Ndakaaru Pikine yoof Kër Mbay Fall Zac Mbao Rufisque Parcelles Assainies autoroute à péage ak VDN 3 li moo tax yéene bis bi jàpp ni Ndakaaru démb mucc na ci ab jëy li tax nag ba musiba bi antuwul le quotidien yéene kaay di xam ne ni xarañte waa sûreté urbaine moo ko waral li waral ñu fas yéene génne Ousmane Sonko ci liste électorale yi jaaxal na lool waa enquête quotidien ba tax tey ji ñu daal di ci xëy samp ay laaj yu bëri yéenekaay bi dénk ci sax ay kàddu ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci wàllub yoon ak wàllub élection te ñu bëri ci ñoom jàpp ni dogal bi ci boppam méngool ak yoon suñu naataango yamuñu ca ndax dañoo jàpp ni bu fekkente ne antu na daal ci Sonko ndaxam Khalifa Sall ak Karim Meïssa Wade ci seen wàllu bopp waruñu leen tamit rajee ci liste électorale yi li daal Ousmane moo tax l'observateur di bi mu ni ñàkk na ñi nga xamante ne ñooy ay kàngamam ba noppi nekk ay njiitam li dal yeewi askan wi métti lool ba tax leen l'info yéenekaay jàpp ni li beneenu pexe njiitu réew mi Macky Sall bi nga xamante ne daanaka antu na ndax gannaaw ba ñu dàkkee waa taxaw Sénégal ci biir coalition bi tas parti Pastef yeewi askan wi nag jamono ji ay kàngamam yépp daf ko daal di ñàkk moo tax seen chance ngir élection 2024 yi lu néew la yéenekaay bi yokk ci nii donte Macky Sall dafa jël dogal ni kon du bokk ci élection présidentielle ñu dëgmal waaye ne moom moo koy tàmmu boo moyul ndam lu yaa war a am ci kanamu opposition bi li Macky Sall ak nguuram di def opposition bi naka noonu activiste métti na lool ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci xeex ak ak yelleefu doomu aadama ci Sud Quotidien nag waa société civile ci seen wàllu bopp mel ni ñuy àtte état bi ak doxalin yi nga xamante ne ñaawlu nañ ko lool société civile bi ci biir laas mel ni ñuy xutba état bu Sénégal yëf yi mel ni yemul sax ci xutba ndax wal Walf Quotidien dafa xam ne nii société civile dafa wane naqaram ba noppi dankaafu état bu Sénégal ci ay opposant yi nga xamante ne mu ngi leen di teg loxo ak ay ba noppi ñuy ngàññ ak ak yelef yi nga xamante ne dañu ko xañ askan wi soble si ñu xañoon askan wi mu mel ni xewel dikk na réew mi quotidien di ñu xamal ni réewub Maroc moo fas yéene wàllu Sénégal ndax lu toll ci fukk ak ñeenti junniy ton mu ngi ci yoon fas yéene dugg ci réew mi gannaaw jafe-jafe yi nga xamante ne kon nemmeeku nañ ko ci ñàkku soble bi ba noppi njëg li nga xamante ne cher na lool métti woon ci askan wi yëf war a métti diggante Kalidou Koulibaly ak Sadio Mané ndax stade quotidien mu ngi ñuy xamal ni ci njeextoole bis bi ak